voilà mbokk yi am nañu mbégte ak contentement bu mag euh, seen émission Kouthia Show tey nag euh, di bés boo xam ne bés bu am solo la di euh, alxames jeudi muy 4 septembre 2014 ñu am mbégte ak contentement bu mag di ci ziar képp koo xam ne yaa ngi ñuy soog a seetaan donc mbokk yi on est fiers de vous retrouver encore une fois et puis ñuy am mbégte ak contentement nag di partager ak lépp ñi nga xam ne nag ñoom fekk ci plateau bi waaye nag li ñuy def nag mooy fexe ba ngeen xam ne nag tey suñu émission tey dañ ko yaatal def ko spécial procès procès bi nga xamoon nag démb moo amoon te teew na Kouthia

ay kaddu ba Karim Wade daa day jooy Madické Niang tamit dofal Karim Wade yëkkati mouchoir jox ko boole ko ay jooy maître El Hadj Diouf di reetaan di xaqataay nee na jooy yooyu yëpp ay tappale la boobu nag ñuy wax yëpp xam nga ne démb ki nga xam ne mooy biiru Bourgi mu nga woon tëdd ca fi nga xam ne moom mooy ca Euh, tribunal boobu di déglu waaye ba léegi mënagul wax ndax jàngoro yi nga xam ne moom la wax ne moo ko dal buñ ci tëjee nag eh, madame Viviane Wade dina indi ay leeral moom tamit ci ay jooy yi nga xam ne Karim jooy ko nee na jooy yooyu du jooyu tàppet jooyu gor la ñu daal koy tëjee nag ak pénitentiaire ba ca biir kaso ba ndax état du Sénégal dafa am benn décret boo xam ne euh, daf ko fas yéene jël te Karim yëgu ko nee nañ daal bu fekkee ne Karim dafa bañ a wax buñ ko yóbbee ca kaso ba waxul danañ ko booleeg étudiant bi nga xam ne moo nekk ca gire école <laughs> bu moo nañ koy boolal boolee kon ndax Karim bu yëgee loolu dana wax ordre wax bu la ko xam ne ñu topp am na mbégte contentement ne moo nekk ci réalisation bi di Pierre Da Silva de passage une fois encore ñu koy euh, jaalee magam boobu nga xam ne dafa génn àdduna moo tax fan yëpp déggu leen ko ci réalisation bi tey nag dellusiwaat na moom mooy réaliser émission Kouthia Show bi mu fi wutee ki nga xam ne nag c'est son frère son ami tonton mag li ñu def mooy équipe technique <laughs> <laughs> way alors way monsieur le président de la république française François Hollande mais monsieur François Hollande mais j'ai ta nostalgie mais monsieur François Hollande vraiment tu es mon ami mais monsieur Hollande non ne t'inquiète pas non non non toi tu es mon ami toi tu mon ami oui merci hein non non non je te rappellerai tout, à l'heure je suis content de toi Pierre François j'ai reçu euh, l'enveloppe que tu m'as envoyée merci Hollande ah yeah <laughs> da ngay dépasser fenn allo ah jaame jaame jaame jaame jaame jaame jërëjëf Yaya jaame jërëjëf jërëjëf jaame kontaan naa jaame kontaan naa kantu non non loolu jaru ko bul yónni Babacar Diagne bul yónni kenn parce que yow sa yéene rek egg na billaay Yaya man sa suma la dara mais garaawul maa ngi lay xaar yàlla na yàlla defal jàmm waay jërëjëf waay non non kii woo na ma Abdou Aziz président Mauritanie woo na ma félicité ma merci waay jërëjëf <laughs> moom àdduna moom nii rek la Abdoul Aziz président Mauritanie waa mais mais mais mais président non non non non mais wuyu ma Yaya Jammeh léegi la coupé ak man léegi non non non non xoolal Blaise Compaoré moo ne ma dana la gis après ñu xool ñu tasee akkat waaw waaw non non non ban télé fi la waaw waaw fi ba kan Youssou non man non man ko de man kan ban Youssou ko nga wax Ndour man xaw ma ko de man Modou laa xam. non gis nga Abdoul Aziz non non non bu leen intervenir non non non d' accord d' accord alors waa Macky Sall waay Sall non non Macky Macky Macky non Macky dimbali ma rek non Macky gi bàyyi ma moom rek non bàyyi ma moom non Macky bu ci dugg non mais mais mais mais mais xoolal Macky Sall man conseil xoolal naa la xamal dara gis nga Youssou Ndour bi fi apartheid ak waaye nekkee way na fi apartheid ba affaire bi siiw gis nga fu mu nii. moom rek moo war a doon xoolal na woy Ebola def clip bi Guinée <laughs> mais mais mais loolu la na xoolal yónni ko mission bul ko fi bàyyi Macky ne la Youssou Ndour yónni naa la mission nga woy Ebola ba pare dem Guinée tourné fa clip bi mais booy baa ngi fii na dem tourné clip bi foofu <laughs> non <laughs> mais clip bi na dem non na dem booy bu ko fi bàyyi ok Macky yow daal lu ma def rek danaa la xëy sant ko benn liggéey waaye jërëjëf waay mais président nii lay doon non dem au front moo ak ñoom Saint-Louis ak Mara yëpp na ñëpp dem. way way way way way man man moom na ma bàyyi quoi man vraiment man na ma bàyyi tout tranquille waaw oh, ok jërëjëf waay ok Macky merci waay jërëjëf Macky président merci jërëjëf waay ok yoo xam naa la xam quoi sinon kon problème yëpp réglé na bu yàgg ok d'accord merci ba fan yi jërëjëf waay Thank you, Freiburg. jaa ngeen jëf xale yi xol sedd tinna daal gis naa seen taxawaay yi dem leen bul leen ragal ndax yéena ngi kër këri liggéey di ko matal nañu leen yombalal liggéeyu jàppandal te gunge leen kontaan yu góor yeeg ndaw yu jigéen yi dama leen bàyyi xel yéen a ngi jéem bëgg a tekki ragal gàcce bañ a def lu ñaaw yéen li ngeen soobu wane na ni bu doon xare du ngeen mës a daw kon yéen di dimbale leen war na yomb ndax toogu leen mu xaar ni ma leen gisee ngeen di demee la jàmmaar war a demee li ma gis